njiitu réew mi Macky Sall daal di nay tànn ngir le 24 des euh, mars bi ñu nekk ñu dem ci élection ca feg fegg nag moom conseil constitutionnel cette charge rek daal di tànn datu 31 mars bi la ngir ñu dem ci urne woote rek ngir tabb beneen njiitu réew bu yees ana nan la ñu mën a egg ci situation bu nu mel. juróomi fan ci weeru mars bii ci la nag décision bu njëkk bu conseil constitutionnel kon daal di génn ñu daal di ko xam ne rek ki nga xam ne moo di président de la république moom président sax décision bu nu mel mu daal di ko denc. fësalul ko ci loole nag ñoom chargé doon ko xamal ne euh, moom njiitu réew mi war naa tànn dat te sax dañ koo tënk ci mu tànn dat balaa ñu yegg ci njeextalu mandat gi nga xam ne mu ngi war a am le 2 avril ci diggante bii ci mois de mars balaa muy dee rek na ci tànn date ngir ñu dem ci ay élection loolu nag kon di la nga xam ne conseil constitutionnel moom la doon xamal kii di njiitiroo mi euh, Macky sàll moom mi nga xam ne nag kon euh, gannaaw sax ci li ñu daal di proposé nag. beneen date ba wuuteeg bi nga xam ne moom lañ jiitu mi Macky Sall euh, mbujj jël euh, li waral lu nu mel nag moo di initialement conseil constitutionnel dafa opté ngir le 31 mars comme dat boo xam ne ci la ñuy amal élection présidentielle yi njiitu réew mi Macky Sall préféré rek jàpp datu 24 mars. mu nekk benn divergence boo xam ne ci choix bi indi na rek ay jeexi jaax ci xelu Sénégal ana nan ñaari institution yu nu mel. mën a rek jàppee ñaari daal yu wuute ngir élection yu ñu dëgmal mu nekk benn situation bu compliqué waaye tamit gën a accentué la ko gën a accentué nag du dara lu dul la fekk moom mi nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall nangul woon jàpp dal rek immédiatement ngir tenir compte ci première décision bu conseil constitutionnel gi nga xam ne rek kon naroon nañ ko dagantal nañ ko lu jëm ci prolonger mandat am euh, ba yóbbu li nga xamante ni euh, moo di élection yi. Euh, ba ca 2 juin comme rek ni nga xam ne noonu la ko dialogue national proposé woon moom conseil constitutionnel na kon daal di génne beneen décision boo xam ne rek mu ngi ko def ngir tontu ci requête yi nga xam ne kandidaa yi bokk ci élection yi ñoom daaloon nañ ko fa dugal ginnaaw bu mu jëlee décision nag ni ki le 5 février ngir nag woo ko ci mu jàpp ab date ndax gis nañ ne njiitu réew Macky Sall date ba mu génnee décision ba ba léegi mu ngi amal ak tekk tekkaaral jàppul benn date ngir ñu dem ci tey élection ci noonu rek. ci la li nga xam ne moo di conseil constitutionnel kon daal di joxe datu 31 mars ëttu yéenekaay bi di l'observateur dañu xam ne rek naka la processus bu ñu mel demee ba ñu yegg ci ñaari date yu ñu mel moom xam ne ne conseil constitutionnel rek dafa amaloon ci arrêt bu nga xam ne rendu na ko public ni ki mercredi proposé le 31 mars gannaaw ba mu rejeté rek 2 juin bi nga xam ne moom la ña daje woon ca jam ñaaju daal di proposé ci dialogue national ba sept yi kon daal di rek jébbal décision bu nu mel ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall ci suba ga moom mi nga xam ne nag dafa décider rek ignorer date boobee de ndax proposé rek li nga xam ne moo di 24 mars mu nekk choix boo xam ne la mu ko justifié rek mooy 31 mars dafay coïncider ak li nga xam ne moo di feetu Pâques moom président Macky Sall kon gannaaw bu mu reçu eh, jotee rek li nga xam ne moo di assurance eh, ci organisation scrutin boo xam ne waris naa mën a am ci service am bi dafa jox instruction rek cabinet ñi prépare les projets de décret yi nga xam ne kon nekk na lu nécessaire ngir nag ñu fixé beneen date bu yees buy convoqué lu corps électoral loolu rek kon ñu war a mën a xaar rek mu daal di am fileeg nga xam ne moo di ci vingt 24 mars bi la ñu dëgmal te noonu sax ci la daal di dissoudre li nga xam ne moo di gouvernement am jël kii nekkoon fa premier ministre di Amadou Ba daal di ko libéré moom mu nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar ci gënoon fànn daal ko remplacer rek ak ki nga xa ne fi nekkoon ministre de l' intérieur di maître Sidiki Kaba.